sëriñ bi nag li ñu ko wax léegi rek moom suñu wëllëre la suñu xarit la suñu lépp la te lépp loo xamante ni xewle na ko bésam bii daf koy gën a màgg xew na ko bésam bii day doon bés bu màgg donc lépp lu xew daanu ko bàyyi ñëw teewal ko ndax moom nag teewal na lislaam teewal na askan bi teewal na tariixa bi teewal na képp koo xamante nii mën naa ne ab sénégalais nga tey donc loolu moo waral suñuy tànk tey di ko ñaanal nag yàlla may ko wér kattanal ko te loolu bu ñu ko waxee ba pare mooy jiitoo nañ ñaanal ki nga xamante ni mooy tey xalif général des mourides di sëriñ Touba di Serigne Mountakha Mbacké donc lii moo doon suñu ay kàddu di ko sant nag di ko ba di ko sant di ko gërëm ndax nag moom am na njëriñ am njëriñ mooy nit koo xamante ni da ngay lijjanti subaak ngoon lu jëriñ askan wi donc lii daal moo doon suñu ay kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko sant di ko gërëm di sant nag aussi suñu xarit muy Ahmed Saloum jëng nga xam ne moom aussi taxawaayam rafet na lépp loo xam ne jàpp na ne day defaral sëriñ Touba lépp loo xam ne jàpp na ne day defaral Serigne Mountakha lépp loo xam ne jàpp na ne day defaral Serigne bas wala yoonu murit mi ngi ci di ko dox suba ak ngoon di ko ñaanal moom it yàlla may ko wér may ko kattan li daal moo doon kàddu yi ñu bëggoon a sànni jërëjëf.